fas yéene dund ci biir waxtaan di leen jottali kàddu nuyoo ak kàddu cant ak kàddu ngërëm yu bàyyi ko ci ci su nekkee jëmbi Sëriñ Tuubaa di Cheikh Mouhamadou di ko ñaanal mu yàgg ci lool te ànd ba mottu bi mboolem ay yéenam ak i naatam te dara génn ci liggéey Sëriñ Tuubaa muy kilifa bu nga sëkk kilifa kilifa boo xam ne li ñu doon kilifa foo ko gisee sax dem ci mooy delloo la sa borom mooy kilifa boo xam ne itam ku ko xam ci mën a mun mën a dékku ak fàtte boppam lu néew néew la muy jëmbu joo xam ne la ko waajuram Cheikh moom ba si seeraloo rek nekk ma jaaxal te moom mu taxaar ndax moom daa bëggul dara moom kaa bëgg naa dara da waaye la ma bëgg moo jafe xam kilifa bu mel noonu bu am war ngay fàttali baax ci ginnaaw bi nga nekk ndax bu ne seere mooy sëtu Serigne Touba bi njëkk a taxawu doomu Serigne Touba ci ndigalu bi mu demee ba doomu Serigne jiite ci jur gi ànd ak jiitam Serigne Sary moom la tànn taw ñu ko wax ci woon kon de Serigne bi daa wax rek li yées ci adduna mooy xam xam lu amul ak am lu amul kon yàlla nañu yàlla dimbali waaye ñu topp ci gànnaaw li suñu kilifa ndax moom kat kenn mënu koo xeet dara du ci jikko du ci jëf du ci xalaat du ci doxalin te lii itam yëpp génnut yërmaale ci nit ñi génn bëgg ñëpp am jàmm boole jaam yàlla bu ma sëkk te bu fépp jëf mu génnee ñëpp xam jëf ci dara mu jaaxee ma ñu koy ñaaw yàlla ci jaaxee kilifa yi ga xam ne moo leen jox ndigal yàgg na ba Cheikh Mouhamadou Lamine Bara jëlee liggéey bi teg ko ci sama loxo maa ngi koy fàttali si ñu soxla moo woote woon ci kër si ñu tubaab ñëpp toog booba Cheikh Sidi Mokhtar bi rek mooy ci at mu njëkk bu wootee waa jëbaru Serigne Touba gépp ba Serigne jàppale ko ci bi tam suñu sànni yaa ma bëgg a seeral lépp waxoon ci ba ba sa jataay ba waxoon na fa kàddu bu diis ne bu ma ko sañoon tamal ko ne man ñu may laxasaa toog ci ginnaaw waaye du ma du ma du ma dañ dina ba nii waxtu wala dama danaan ma li jiitu ci sama liggéey mooy sàmmal la liggéey bi ak loola ci noppal kon suñu cat ci moom yàlla suñu tubaab yi ko seetal bu lépp itam xam gi ñu xam li muy def ci diggam ak boromam ngeen bëgg mu santaare bés ku xamoon lam ci dexañ ci biir ngir bëgg ñëpp am jàmm am xéwal nit ñi fu toll war nañ ko ñaaw yow ñu teel kon ñu ngi suñu kilifa yi baax yi nga xam ne ak comité organisation bi nga xam ne ba liggéey bi tàmbalee ba léegi nii ren la di fukki at juróom-benn wala waaye boobu ba léegi nii kenn tayiwu ci kenn toppwu ci waxtu la dañuy seen procédure bi gën a yokk xam nañ ne suñ tubaab yi liggéey kon ñu ngi leen sant bu ci ànd ci liggéey bi ndax loolu itam. moom la Serigne Touba doxaloon ab bi ab liggéeyam ñoom ñëpp ci ne sama euh, Serigne lu mu si def ñoom la ko daan moo la ñu te loolu Serigne Touba itam moo ngi teel te di jot li kàddu yi nuyoo nag yoo xam ne ñu koy teg ci loxoom juróom-ñi de bi nga xam moo jiite liggéey bi. ak service yu ko seqal te ka ñu jiitu bu préfet bu Mbacké sa sous préfet nga xam ndaje yi ñëppoon def ci commune Touba ca Serigne Ousmane teewe ko ak Serigne Mbacké ñoo ko àndoon ba liggéey ca lépp solo ci liggéey euh, ndaje Mbacké waaye defal ko ci commune ndax mu gën a yaatu ba li cëpp lu waxtaan ak chef de service bi bu seqal ñu yëkkati ñu la di ko teg ci sa loxo nga jot nañu ko ku jiite réew mi tey di président Diomaye Faye ko yóbbanteel nuyu sëriñ bi ak wala ñu seq ak liggéey te bu ñu tuddee premier ministre Ousmane Sonko tudd ci ministre de l'intérieur mi nga xam ne mooy coordonné liggéeyu mag bi ndax wàllu diine ji ci foofu la di leen ñaanal suñu borom dimbali leen yaakaar ji réew mi am coono suñu koo tas ndax yaakaar rek nit moo tax ñu fàtte rek a fi am ci la xëyee ak ci la gontoon mu ne mu ne ki la xëyee daa tëdd ba guddi jaaxle ci biir xelam xalaat bu somb xel rek moo ne nit waaye ni nga fexe ba yaakaar bi bu mu tase ci yow nee na ki la gontoo itam daa xëy woon feneen yaakaaram defal mu dem fa bokkoon yaakaaram tas fa mu gontoo la kon dikk na nga fi am yaakaar bi dootul tas kon nag ñu ngi rafetlu liggéey bi nga xam ne moom lañ sóobu xam naa bu ñu demee ci biir Serigne Ousmane bi nga xam ne mooy saytu kuréel bi nga xam ne mooy saytu mag bi ak ñi mu ko àndal ak seen i xarka danañ leeral li jëm ci wàllu liggéey fi ñu ci toll ak li ñu ci war a jooyante ndax màggal gi moom bisu Sëriñ Tuubaa suñu doon def def ci def la fi ñu ko wootee tey ci daj bii di gouvernance bu njëriñ Sëriñ Tuubaa fii la jëkk a wootee màggal gi 1921 wala 21 daa amul jiw nag waaye ñu génn ñaari at yooyu ci la Sëriñ Tuubaa xëy bis ne natt yi ma sama borom ko te jeex na li di def ci sama wóor lépp ak koy na ak xéewal màggal gi saa su accepté ne xéewal suñ ko doon defal da koy ful ak doon toll noonu fii la wootoon ci njëriñ yëmutoon wax ko njëkk tàmbali moom ci ci biir këram mu mujj màggal gi dem ba génn penc mi kon sëriñ bi lii mun a woote waat ñu fi jagoo Sëriñ Tuubaa ñu fa wuti yëpp di ko ci ay waxam yooyu ginnaaw bi tam ñi ko fuuti ñëpp wóyul ko tàmbalee ci Cheikh Mouhamadou Moustapha bi mu fi nekkee ñu ko doon dundal ni ko sëriñ bi daa dundale te boo ko ne da ko daal di sa kër ba Cheikh Mouhamadou Fall Mbacké ñëw woote ko ca Touba ne léegi sëriñ bi kat bi tam Cheikh Abdoul Ahad Mbacké ñëw ko bi mu ko wootee itam Cheikh Mouhamadou Fall bi nga la waxoon ko waa fenk bi ñoom bis waa waa soow bi itam ma bëgg ñoom bis man yaakaar naa ñaanam boobu lañu adduna sépp tëgg nañ ci Cheikh Abdoul Ahad Mbacké bi ñëwee bu wax ne màggalu Tuubaa mooy suñu fête indépendance da ko wax ñëpp ñu dégg te loole itam mu wér a wér la ndax fête indépendance bu assee ci Sénégal bis bi Sénégal moo boppam ci saa yaakaar naa ñu xam nga tey kenn liggéeyu ci lañ ko yëngu wala ci télévision lañ ko yëngu waaye màggal Tuubaa képp mooy màggal goo xam ne boo demoon boo yeexee sax jafe-jafe oto bu nu yóbbu la ndax bu Sëriñ Tuubaa demutoon ci géej gi kon tey lislaam dana fa ci lislaam dana saa fa ci lislaam dana fi lool ak tubaab dana fi lool Sëriñ Tuubaa doog ñu doogoon liggéeyee ni borom ci bis bi ba suñ ko fayoo ko mu ko fayal looloo waral ñu jot suñ bopp kon màggalu Tuubaa mooy dëkk dëkk feete ak badaal bu màggalu bi dafa la xëy ndax nit ñi moom noonu la àdduna baaxoo mu ne leen màggal gi day jërut xalaat ndax koo xam ne yaay defal bis ñëpp sa bis mënta waxaale sëriñ Saliou nag doo ko tënkoon ci gàtt daa waxoon ne màggal Tuubaa de gan ñi bëriwut ndax mooy kilifa diine yi ak waa gi ñu ci des ñëpp nag taalibe yu siyaare seen daa dem war na màggal organise ko dafa nuru lu jafe waaye lu yomb la ndax li tax mooy taalibe bu nekk dana fexe ba këram jàpp loolu la ko jàpp naa ne koo xool gis ko bi ñu fi bàyyi ko itam association comité organisation bi ñuy wax tey ci nekk na tam Cheikh Sidi Moussa itam ñëw yokkaat ko doon ci yu bëri bëri ba Cheikh Mamadou Moustapha yàlla fi yàgg taal moom itam daaw boobu ñoo ñu joxaatam dafa gën a yëkkatiwaat ngir xam ne bis bi moo suñu defoon àdduna ak suñu defoon àllaaxira ñàng ñu mu wootoo yow bokk na ci daal jox ko ndax day mbirum lépp dis ko mën a leer waaye ba la ci mujj mooy waajal ko ak Tuubaa kon xam na màggal Tuubaa fa day toll kon màggal gi nag du jar sori ci li tax ndax Sëriñ Tuubaa lu dox digg ma borom moo xëy bis wax ne loo ko ci ñëpp santal yàlla li tàmbalee ci gannaaw ba ci gileem am xaafet la ci ñu mooy am xaar kon ak jaamu yàlla jaamu yàlla ci màggal Tuubaa gi la ci jiitu mooy ndigal li ci Sëriñ Tuubaa defam la lu ci dolli ko wax dañ ko ci dolli waat ngir xam ne lu baax la ak ban nit ñi def doxali waaye lam ci digdeel boo xam nag te léeg-léeg ñenn ji mel ne kuy bëgg a jëli jeex di ko teg ci kaw waaye suñ moom la mu ci santaane woon mooy gàddaay kon màggal bi suñu gàddaay la loolu itam bu lu jar la yàlla suñ tubaab deful ni ñu koy layee bisu tabaski bi ñu weesu la suñ borom dafa wax rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax nit defalu ci jaamu yàlla lu gën rek lu dem xaar kon bisimilah benn yoo man yanaalu llaaha luhuumuhaa wala dimaahuhaa walaakin yanaaluhu taqwaa ba ko sëriñ bi woote itam mag ñi daa ko tudde ak tabaski waxtu sëriñ Saliou moo njëkk wax ne moo ne sëriñ Tuubaa moo njëkk wax ne bu leen koy tabaski waxtu loolu day day day faat sunna Seydina Ibrahima wax dee ko tudde am màggal baatu màggal ci sëriñ Tuubaa kon loolu moo tax ba léegi gi nag moom yaari fan la mooy gi nga xam ne nguur gi ñoo koy def te li ci ëpp ndox kon loolu itam xam naa bu ñu ci duggee daañu wax fi ñu ci toll ak jiw yi ci def kon ñu ngi leen ci ñaan baax ñu gën ci góorgóorlu la ci des mooy wàllu nga xam ne dëkk bi. xam nañ liñ ci jànkuwanteel te màggat gi rek nekk ci digg nawet bi loolu itam yéen da ngeen di yàlla faral ci tool ba ca des it mooy wàllu bi itam xam ngeen ne Touba ni muy màgg di toog ndax ay 2003 2004 Touba mi ngi tolloon ci méga méga weer méga la ca ca toll fii may wax ak yéen dem na ba àgg ci 100 mégawatt kon dëkk bu màgg noonu. bu ngeen gisee ci jamono yi Abdou Diouf ak président Abdoulaye Wade daa ngi def at mu jot mu maye courant bari ci dëkk bi mu jug am daa daane def at mu jot ñaari at yu mujj mu jumut at mu jëkk ma cinquante kilomètres lañ joxe at mu mujj ma deux mille ñu joxe cent kilomètres cent kilomètres itam dañ ko daan tas ci quartier yi dëkk bi ndax xam ngeen Tuubaa li mu bindoo amul benn quartier booy dem ñoo fay dëkk benn kilifa bu sant sant ay teen jox ko ay teen wooy naa mooy dëkk boo xam ne Sëriñ Tuubaa jox ko ndigal mu ne woon ci bitti Tuubaa Tuubaa dem ba mëdd ko la war a si Tuubaa ak si ko kilifa boobu ñaan ko am noonu lañ ko daa séddale ci biir kër yi yàlla def nag 2012 bi président Macky Sall ñëwee ci nguur bi ministre ba yoroon indépendance bi mu xoolee kayit yi xamul nu mu ndax nguur gi yees la toujours baaxoon na ci am bu ñu xoolee kër yi ñu tudd Daaru Xudoos tudd Daaru Minaam tudd Daaru Muxti tudd Daaru Salaam tudd ko Mamour Diarra tudd ko Cheikh Ibrahima xaw mu def mu ne man xaw ma courant buy jëm ci ay kër yi kilifa li ma xam mooy courant bu jëm ci population wax ko ci conseil bi yàlla kumpa am ca loolaa waral excitation yi ñu ngi koy def sax waaye amul ci benn excitation bu jaaral ci kilifa dañuy def def ko ci dëkk bi ñu ngi ci dëkk bi sax loolu sax damaa bëgg mu leeral ndax kilifa yëpp dañuy ñëw ci man di ko sàkk bu ma ko mosaan sàkk fii dama ko waxaat ñu demee ci càll duñ ko bu ngeen ma wax ci loolu kon weesuwuma ci xawma ci lu weesoo defar nañ i plan defar seen itam ba noppi ne ci dara ci lu weesu man mii di wax ak sama kër gis ngeen daal assainissement Fatou kon noonu la demee loolu tamit day masa ndax nit ñi xam ne demee du courant boo xam ne joxeetuñ ko sax ci mujj waaye bañ ko daa joxee ñii la daa demee ndax kilifa bu ne taalib bu ne taalib bi amul accès ci maa dem ci nguur gi ñaan ku ci ne kilifa ngay dem seen kilifa yooyu itam ki fi nekkal Sëriñ Tuubaa dañu laaj kooku jox ma kàddu ma ko liggéey noonu rek la waaye moom li ci am solo rek mooy. loolu moom suñu wàllu boo xam ne euh, ñoo ko wax mooy wàllum am loolu yëfi état bi du yëfi Touba ndax Touba moom yaakaar naa la ñu war a def lépp ñu ngi koy def ndax Touba képp ngay dikk di dugg ci dëkk ba fekk ab hôpital ñun la day appel nga gis éclairage public ñun la day appel nga gis ay poste de santé ñun la day appel nga gis ay tëli ñun la ab daayira nga gis ay résidence ñun la ab daayira kon murid bi moom nangoo liggéey jàpp naa ci ñun la am kon nag màgget bi moom borom def na ko war a ko ñun nag li ngeen ci war a xam ne ni yéen a ngi ci kon ñu ngi dugg fi ñu ci toll seen Ousmane ñoo ko seen jaatu ñun ko yaram ak sëriñ si fi teew waaye xam ngeen ne loo xam ne Sëriñ Tuubaa ba mu koy njëkk rek génnatoon biir këram waaye daale woon na it ne màggal gi dem ba àgg foo xam ne ku dul man mi ko woote ak yàlla suñu borom bu bind nii doxam dafay teew ci mbooloo tool xam ne nag waa université ba ndax mu waar loolu moo njëkk def xayma 2011 moo jur sax màggal gi tey ñu def ko fête indépendance ba ñu defee xayma ba la ko njëkk dañ daa wax naan màggal Tuubaa day économie yooyu ndax nit ñi duñ liggéey ba defee étude bi nag ci lañ xam ne magal gi day yëkkati économie bi keroog bañ ko wax président Abdoulaye Wade man mu waaruloo maître Madické Niang ñoo fekk jotaay ba ñu bëgg a julli ji ko mu waaruloo waxee ne ko magal gi dañ ko defee ren la dara loolu mënti te ndax Sénégal confiné yi dafay bari mënoo defal Touba bàyyi fa des boo ko defee di indi coow mënoo ko bokkul man mii di wax yow bokkuma Touba kokki la dëkk bu fekkoon damay défendre kooku laay laay défendre waaye Touba dafa tolluwuti fenn wax jooju rek moo ñu topp ba léegi mooy bëgg jàppe Touba dëkk boo xam ne dëkkub sëriñ la màggal Touba ñu xool lu tuuti ñu def ko fa bu jàllee ba déwénati Touba tollutu foofu ndax dëkk boo xam ne dem nañ ba da na ngeen daaw bi ñuy def étude yi dañoo wax ne Touba mooy ñaareel dëkk bi gën mooy Sénégal ba fa biiñ ñi def. recensement bi ñuy ànd ak waa bi ak waa Touba ci ak mbooloo mu bëri dikkee ma ko recensement bi ngeen di def dafa baaxul bu fekkee baaxul nag ñun danañ jël suñu responsabilité defal suñu bopp ndax comme état buy natt day xool ñu dëkk ci dëkk ba gis na ne Touba wóor na ne li ci dëkk mën na ñaari million yàlla def ñoom ñu def bi gën nañ ci ay yóbbu yitte ba wax ne Touba léegi tey mooy dëkk commune bi yëpp ci Sénégal doonte la fa mu àgg lépp ñu bari bindoo waaye baax na ba tey ndax lu ci mën a xew étude bi nga xam ne université Bambey def na ko daaw muy étude bu wóor boo xam ne ko dem bëgg gis kay bi da fu wóor la tëjee bi ñu xoolee daaw màggal yi dépassé yi jëm ci biir kër yi dem na 74 milliards dépassé yi jëm ci kër yi dem na 74 milliards bu ñu xoolee xar yi ak nag yi. ganaar yi dem na 33 milliards bu néewee bu néew kon loolu bu ñu xoolee budget total bi yëpp ñi defaraat kër yëpp ñi xaalis bi jóge bitim réew am na ci génn kër bu yónnee xaalis bi wax rek wax na ma ca làmb ñoom ne ma ñetti fan màggal bi 3 milliards dugg na ci biir dëkk bi jaay ci moom benn kër bànkee xam ngeen ne ko fa dem day am jafe-jafe kon màggal Tuubaa li muy tuuti ci réew mi ñoom ci seen xel na yi gën a néew weesu na deux cent quarante milliards kon deux cent quarante milliards yooyu képp jàpp naa ne xanaa ñaari at wala ñetti at ko defoon war naa mën a defal dëkk bi te dëkk ko xam ko ne xam ne Touba nag duñ jàmbat ndax loolu Serigne Touba dañu koo tere képp ku fi nekk jiite réew mi boo defee lu baax dañ koy sant bu fekkente ne lañ séntu mot tam du tax ñu xaram la loolu moom Serigne Touba dañu ko tere نشأت بالشكر شكاية فلا أشكره دوري ودوري أبدا waaye bu ngeen di xool ci li weesu lépp ñoo ñëpp jàmbaar lañ leen sant nañ leen bu baax a baax ndax teraanga kenn du waxee waaye buñ xoolee Touba dayo bi fi mu àgg xam ngeen dëkk bi genn kaaru sax kaaru dëkk bi sax dañu koy tëri assainissement bi itam xam ngeen daanaka dëkk baatum suñ to waaye xaw naa yokk daal ndax boo demee ba kër yi jumaa yi fee ñu def na cérémonie observatoire fa ñu teg bâche ba daanaka lu jege téeméer million ñoo ngi ko ci bëgg a ñàkk ngir mën fàtte bâche kon xam nga ni loolu bu mu ci jublu dëkk bi dañ yàq loolu nag responsabilité état bu loolu sëriñ bi waaw loolu état ko war kon loolu itam nañ ko gëstu te saytu ko te xam ne ndox mi li muy baax baax baax réussi bu baax moo ko gën ndax 38 forages wala 37 xam nga ne xëyut ci Tuuba ndax capital région yëpp boo xooloon. ay fukki forage fukki forage yi ñaar weesu te seen ndox moo yor kon Touba réseau bi dafa yàqu am na ci ne ñu ko gas wax ne boo ko laajee mu nga wax boo demee tey kese bu daal ndox maa nga ci biir nga dem bu daal ndox maa nga ci biir armeel yu bari yàqu nañ ndax ndox mu bari boo demee kese ñu saa ndox maa nga ci biir suñu Cheikh daaw taw mu ngi faral def lu leen lañ def daaw jëm mën ko fa taxaw boo demee. fépp ba ci pénc bi daal xoos kon ndox mi mi ngi bëgg yàq dëkk bi kon loolu mooy sax li gën a jàpp mooy assainissement bi ak réseau bi kon loolu ñu ne ko fàtte ndax màggat yi day loo xam ne mooy Sénégal ndax ginnaaw jaamu yàlla gi ci Serigne Touba santaane wax la mu ci deere waxoon ko Cheikh Mouhamadou Moustapha ne ko bu ñu demee ba ëllëg àjjana amatu bis waaye ci kàttanu yàlla yàlla mi nga xam ne bi moo bindoon adduna képp ku daa sonn ci sama bis bii da nga gis teraanga yu ci yow yoo da nga gis ne kon màggal gi jàmm bu ci Sénégal dëgg dëgg dëgg dëgg kenn tudd fi wàllu ter Sénégal gépp nekk benn màggal gi bokk ci suñu ni ci wàllu ndax étude bi wane na ne cinquante six pour cent yi ci ñi màggal ay wolof la vingt deux yi ay séeréer la onze pour cent yi ay alpulaar lañ cinq pour cent yi ay pël lañ trois pour cent yi ay joolaa lañ un pour cent bi jeex mooy yeneen xeet bi ñu xoolee màggal gi itam wax nañ ne quinze pour cent yi doonuñu état bi si Tuubaa seen bokk jullit dañ ñëw ànd ñu màggal un pour cent yi nekkuñ sax ay jullit fa kon loolu liy gën a dëgëral liy gën a benn Sénégal màggal ko ak suñu ci woon bëri na kon nag ñaar ñu ñu ñaar ñu ànd ak ñoom ba yàlla dimbali ci ba ndam luñ ci daa ñoom ci lu ko ëpp yéen ñi nga xam yéen a ko taxaw itam suñu borom dimbali rek kàttan ak ba lu ngeen ci daa def rek mu gën a yomb ci yéen ndax xam nañu tolluwaay yu bëri fi mu toll moo tax am na ci soññoo yu am sax. du jar àgg ci ndax seen daa dinaa wane ku ne la bu ko ne gëstu nit bu fekkente ne xam na jàngoro xam na ko ci wax foofu la du doon ak si biiru sonn foofu lañ ci yore kàddu gi. salaamaaleykum wa rahmatulah.